dama ñëw seet ci xarit bi d'abord dama amoon ay relation yu yàgg ak moom mu nekk nitu diine te kër gi ku fiy ñëw aussi man de dama bëgg toujours di doxal li nga xam ne mooy sunu cosaan mooy sunu aada mooy nit sooy mbébét wala sooy sumb dara nga dem ci këru diine yi d'abord waxtaan ak ñoom wax li nga xam ne moom nga bëgg ci sa réew dama ñëwoon pour ziare ko comme ni ma leen ko waxee parce que yàgg nañu ñaareel bi pour wax ko sama ambition pour le Sénégal waxtaan ak moom ci réew mi loolu moo doon sumay tànk tey. waaw xam nga fi mu nekk fii ñaar fukki fan ak ñaar yàggatul bu ñaar fukki fan ak ñaar incha allahu rabi danaa wax sénégalais yi ndax damay dem élection présidentielle wala dama ko def ñaar fukki fan ñaar kay yàggatul. xam nga man dama respecté bu baax nit rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci PDS tey nekkoon ci PDS jëmb te ànd ak président Wade ba mu leen fu mu leen indi dama respecté ñooñu trop moo tax bu ma déggee nit ñi di wax plan B la plan C nit nag ku nekk mun ngaa wax li la neex wante nag sama respect bi ma am pour ñooñu du ma may may commenter sax loolu wante suma xam na xam ndax man nit dana ma yóbbu defloo ma lu ma loo xam ne lu méngoog li nga xam ne moo nekk suma xalaat ko